alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammadin sayyidil mursaliin wa ala aalihi wa ashaabihi ajmaciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'd mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaaraka wa taala gannaaw loolu ñu xam ne. sunu borom tabaraka wa taala soññi na mboolem jullit ñu def lu ñu man ci muñ seen diggante ak jigéen ak rafetal jëme ci ñoom ndax ëpp sëy mën naa diis metti ba nit ka jàpp ne la gën ci moom mooy génn ca te fekk la gën ci moom mooy continuer aw yi wu rëy a nga ca kon sun borom tabaraka wa taala bëgg na lool ñaari woy dencante ak juboo nekk seen diggante sib na it ñu dencante ba noppi di tàqalikoo moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne wa aashiruhunna bil maaruf na ngeen ànd ak ñoom cib sëy ñoom jigéen ñi ci lu rafet fa in karihtumuhunna su ngeen demee ba mu yàgg ngeen sib leen maanaam bañ leen fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al fihi xayran kacira amaana mën ngeen a bañ dara fekk yiwu rëy nga ca ànd ak soññee boobu sunu borom tabaraka wa taala soññee ci góor-góorlu ci rafetal jëme ci jigéen ak téye ko téewul nag chariatul islam daganal na passé passé sax ci xéewali sunu borom tabaraka wa taala yi ci la bokk ndax sëy mën naa dem ba àgg ci bunt bu tëju nga xam ne mënatu la jàll su fekkoon ne passé dafa xaraam daanaka moo ko dugg ci kaso benn lay doon moo tax diine walla yoon yi nga xam ne dañoo xaramal passé da nga gis sëy yoo xam ne dem na ba àgg foo xam ne dana la wóor ne ñaar ñi moom sëyatuñ ndax kenn mënatu cee supporter moroomam kon la fa sës mooy caaxaan ku góor ka dem di caaxaani ku jigéen ko dem di caaxaani ginnaaw passé daganut kon nag bu pase daganoon dana doon xéewal ci ñoom sëy booba ñu yemale ko foofa keneen ku nekk dem seeti keneen kon sun borom tabaraka wa taala moo ko daganal bari na nag ay njuumte yoo xam ne dafay am lool ci passé ak ay déggin yoo xam ne wuute na ak shariatul islam te fekk ay jullit ñoo koy dund loolu moo tax bokk yu bari it ñu ngi ñaan ne dañoo soxla woon gannaaw bi nga xamee ne def nañ ay xutba yu jàll ci wàllu sëy ñu def benn xutba boo xam ne day jëm ci attey talaaq muy fase kon fase sunu borom tabaraka wa moo ko daganalal boppam aay yu bare bare bari ñëw na ci alxuraan yoo xam ne moo détaillé att yu jëm ci pase ak yu jëm ci fayli ak lu jëm ci li ñu tudde idda kon xutba bi tey ci loolu la jëm aaya yooyu rot ci passé ak lu ko nuru buñ ko jàngatee danañ gis ne axkaam yu bari dana ci jóge bokk na ci axkaam yooyu ba ci jëkk moo di ne passé ci boppam daf cee am ñaar yoo xam ne yu dagan lañ ñaari façon yu dagan am ci ñaar yoo xam ne yu xaraam lañ yu xaraam yooyu nag ñu xam ne téewul ne day tàbbi maanaam ku ko def passé nga sa jabar waaye nag def nga lu xaraam itam ñaar yu dagan yi mooy buy fase soxna sa na fekk mu ju mu nekk ci laab maanaam fekk na gis na la jigéen di gis muy reegal ba sete ca loola te àndaguñ ci wàllu sëy ñoom ñaar situation boobu su ko ci fase def na pase moo xam ne pase mu daggan la mu sharia daganal wala mu fase ko fekk ëmb na ëmb bu fés ba mu wóor ko ne moom soxnaam ëmb na te wóor na ko ne doom ji ci biiram doomama mu fase ko ci situation boobu kooku passé mu sharia nangu la mu jub la tax ñaar yooyu benn bu ci nekk boo ko seetee dafa am lu tax mooy bi mu koy fase xam nañ idda ji ci lan la tënku kañ la maanaam bu fekkee da ko fase ci laab xam nañ ne idda dafa war a nekk ñetti laab kon laab googee dañ ko koy limal mu nekk ci idda ji bu demaatee ba gis geneen ba amaat geneenug laab iddaam door a jeex danañ ko leeral ci kanam ñaar yi daganut nag mooy mu fase ko te fekk dafa nekk ci biir reegalam ndaw si gis baaxam setagul ñu fase ko loolu dafa xaraam waaye nag pase la tàggoo dana ca am beneen bi ci des mooy sete na ci reegal bi mu doon gis waaye jot naa sëy ak moom ba noppi door koo fase loolu itam dafa xaraam donte pase ma da cay tàbbi ndax sëy boobu kenn xamul ëmb am na ca walla amu ca te su fekkee ëmb am na ca kon yàggalal na ndaw si idda ji yàggiin woo xam ne yàlla rek moo xam ne mu toll ndax juróom-ñeenti weer mën na koo mat kon yàggaay bu ëpp boobu moo tax sharia tere ko loolu nag buñ ko dee wax mooy soxna si nga xam ne dañ ko ko may ba mu jot ànd ak moom ci wàllu sëy waaye su fekkee dañ ko ko may te li ñuy tudde du xool amagul maanaam fasal nañ ko ko rek waaye giseegul ak moom am xelam soppiku mu fase ko kooku charte yooyu yëpp nekku ci mën naa nekk ci laab mën naa ñàkk a nekk ci laab kooku itteelut parce que jotewut ak moom dara borom bi tabaraka wa taala noonu la ko waxe ci alquran la junaha alaykum in talaqatum nisaa maa lam tamassuhunna maanaam su fekkee ne joteegu leen ak ñoom dara ngeen fas leen loola moom situation bu mu mën a nekk bu ne rek dagan na araamaluñ ko ñaareelu àtte ba moo di ne ay alxuraan yi nga xam ne mooy ñëw ci bunt boobu dafay wone ne passé mi nga xam ne li ñuy tudde fay li daf caa mën a tege mooy passé moo xam ne benn yoon la ko mas a fase wala ñaari yoon fay li nag buñ ko waxee mooy nit ki fase jabaram ba mu yàgg mu dem jëliwaat ko ne ko ñëwal te du jar ñi koy fasaat du jar muy ñaaniwaat ñi mayewaat kon loolu moom la ñuy tudde passé moo xam ne fayli la kon ki fase jabaram benn yoon dong te iddaam jeexagut sañ naa dem jëli ko indi te duñ ko takkaat su fekkee mi ngi woon ci kër gi sañ naa xëy xëy ne ko man kat fase woon naa la waaye dellu naa ca gannaaw mu continuer di sëyub sëyam bu ko defaatee beneen yoon muy ñaari yoon ba tey sañ na loolu waaye nag bis bu ñettee nag kooku moom beneen àtte la boobu mooy ñëw mooy ñetteelu àtte bi moom la borom bi tabaraka wa wax ne xatta tankixa zawjan gayra kooku danañ fi jëlee ne kiñ fase ñaari pase kooku mënatu koo takk lu dul dafa dem sëy ci keneen dafa daf ko fase mu toog ba iddaam jeex keneen takk ko takk boo xam ne bu normal la waxuñu nag li ñu tudde nikaaxu taxliil takk ko fekk lam ci jublu mooy pour dagganal ko ku jëkk ka dana ko takk rek su ma ko takkee ba noppi suñ àndee ma fase ko léegi mu iddawu nga mën koo jëlaat loolu su ko defee sëy biñ ko fasal moom moom yi sëy bi daganut ànd ba mu ànd ak moom ànd bu xaraam la ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki ñoom ñaar ñëpp te du taxit mu dagan kañ ko bëggoon a daganal kon àtte yooyu yëpp da cay tegu kon kooku amul benn njariñ ba tey danañ jariñoo ci àtte yi ne ki nga xam ne dañ koo fase fasem pay li maanaam mooy pasem mu njëkk wala mooy ñaareelu pasem te iddaam jeexagut moog jabar yi ci des ñoo bokkub àtte maanaam ya ko waroon ci moom da ko ciy war xanaa lu ca nekk daal lu leen wutale mooy yi ñu fase moom amutuk ay amutuk ay goo ne dañ naan day ay ayeloo saa bu ko neexee bu nekkit mën na koo delloo siwaat mu nekkaat jabar ndax borom bi nee na wa buxulatuhunna axaq bi raddihinna seen boroom kër yi ñoo gën a yey ci delloo si leen saa buñ ko bëggee fay li mën nag dafa am ay charte daa am condition yoo xam ne su dajaloowut fay li du mën a nekk yooyu war naa dem ba mat juróom-benni sart charte ba ca jëkk mooy na fekk ki muy fay li li ko tàqaleeg moom ba mu koy fay li loolu passé la moo toog ba mu yàgg mu fase ko waaye bokkul ak li ñuy wax tas tas buñ ko waxee mooy kay atte attekat ba mbir daa xew ñu ñëw ci moom mu tas sëy ba foofa fay li am fa bi maanaam nit ki dencante na ak soxna ba noppi ñoom ñaar gis nañ ne seen sëy bii am na lu gën ci ñoom mooy ñu xàcc ko bu doon am njaay dañuy wax ne dañ koy xàcc moom la ñu tudde fas kenn ci ñoom fekk na ayib ci moroom ji wala fekk na ci moom feebar boo xam ne ci feebar yi dale ci jamono ji wala yu mel noonu mu ñëw ne ko ah, nan tas sëy bi kenn ka gàntu moo xam ku góor ki wala ku jigéen ki bu gàntoo ñu yëkkati mbir ma yóbbu ko ci yoon yoon woo leen ñi ñëw mu tas sëy ba sëy boobu fay li amu ci kon sëy buñ pase am booba la ñuy fay li waaye sëy boo xam ne yoon a ko tas amul fay li ñaareel ba mooy niñ ko waxe woon léegi parce que mi doon benneel wala mu doon ñaareel waaye soo xasee àgg ci ñett nag kooko fay li amatul foofa ñetteelu charte ba mooy bi mu koy fay li fekk mu ngi ci biir iddaam waaye su idda jeexee fay li amatul danoon xam ci kanam lan mooy idda su idda ji jeexee fay li amatul kon ki takk soxna fase ko toog ba iddaam jeex kooku kay la leen mën a boolewaat su fekkee ne passé bu njëkk la ak passé bu ñaareel mooy bu dikki ñaan si waat ko na defoon bu njëkk ndaw si xool ba xam dana d'accord ak du d'accord kay kilifa ak ndaw xool ba xam dana d'accord ak du d'accord suñ d'accord ñi mayaat ko ko nañ ko ko bu njëkk mu joxewaatu can na ko joxe woon bu njëkk yóbbuwaat jabaram ñu tàmbaliwaat seen sëy bu bees waaye nag fu mu ko fasee toog ba idda jeex kon loolu mooy àtte bi li fekk idda jeexul nag mën na koo fay li ñeenteel ba mooy jamono yi mu koy fayli si bum ci jublu lor ko loolu nag diggante nit keeg boroomam la ndax mën na koo fase bu ko neexee mu ne ko dama lay fayliwaat te fekk lam ci jublu mooy sonal ko rek waaye soxlawu ko na nam meloon ci moom rek noonu la mel ci moom ba tey loolu dafa xaraam ci shariatul islam te it fayli booba du wér ba ca tegu mu juróomeel ba mooy passé moomu bañ a doon passé mi ñu tudde xolu te sun borom tabaraka wa taala tudde ko fidaaw fidaaw mooy jotu ndaw si toog ci séem ba mu wóor ko ne moom mënatul a continuer am na droit ci ñëw ci jëkkëram ne ko lii yaa ma ko joxoon delloo naa la ko ngir ma libre génn ci sëb sëy kooku jigéen sañ na ko ak situation bu mu mën a doon saa bu ko ko joxee mu nangu moo xam loole mu ko jox tuuti na wala ni bari na waaye jëkkër ja nangu na loola booba sëy moom tas na doonte sax waxul ne ko wàcc naa la wala dara waaye sëy ba moom day daal di tas te su tasee foofa fay li amu fa kon parce que mi ñu tudd xulu amul fay li ba ca mujj mooy passé mi bañ a am ci waxtu woo xam ne moom ci boppam àndagut ak jabaram suñ ko ko mayee te àndaguñ dey mu fase ko foofa la ñuy tudde fay li amu fa ndax ndaw sa ab jàmbur la ci moom borom bi tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm yàlla su ngeen takkee ci jigéen ñi gëm yàlla ba noppi fase leen te fekk àndagu leen ak ñoom nee na fama lakum alayhinna min iddatin taataddunaha amee lu ñu leen benn idda maanaam fu passé ma génn rek ndaw sa liibar na bu ko neexee bu ca suba saa mën naa amaat jeneen jëkkër ju bees ndax àndaguñu woon kon idda ja nga xam ne la ko waraloon mooy di teeylu ba xam ndax moom kii ko fase yoreel na ko ëpp ëmbam déet waaye nag ginnaaw mosuñoo ànd ci wàllu sëy su ko fase kon leer na nañ ne yoreelu ko ëmb kon bu subaa bu xëyee rek mën naa amaat jeneen jëkkër atteb juróomeel ba ci idda la jëm moo di ki nga xam ne xas na ànd ak borom këram ci wàllu sëy suñ ko su fekkee ne kuy gis régal la régalam ñetti set la maanaam iddaam ñetti set la ñetti set buñ ko waxee mooy su fekkee da ko fase fekk mu nekk cig set te noonu la ko lislaam bëgge set googu dañ koy limaale gisaat na reegal setaat na nu ne ñaar gisaat na reegal setaat na nu ne ñett iddaam jeex na fu mu sete rek iddaam jeex na bu ci ëllëg sa mën naa dem séyi feneen loolu nag bu ñu seetloo li tax lislaam bëggee ko noonu dafa gàttal idda ji daf ko gàttal ndax boo ko xoolee matul mukk ñetti weer ci set la ko fekk set googu dañ ko waññaale amaana boo demee ca suba sa sax mën naa xëy gis reegalam te fekk ci démb sa la ko fase woon waaye ci set la nekkoon kon du tee dañ koy limal benn set mu gis reegal setaat muy ñaar seetum ñett ba ñetteel ba ca bis bu njëkk ba rek fu mu sete rek liibar na bu ko neexee mën naa dem euh, séyi feneen te du wàññi dara boo gisee nag lislaam kon mu tere ñu fase ko fekk mu nekk ci reegal mooy loolu day yàggal idda ji ci jigéen ji maanaam gàllankoor lu ko la ndax bi mu nekkee ci reegal ñu fase ko reegal boobu daf koy toog ba mu jeex mu dugg ci set ñi door a waññi benn set ñaareelu set ba ca ñetteelu set ba mu door a libre su ko defee kooku li tax ñu tere ko ci sharia mooy loolu kon loolu moo di képp koo xam ne euh, dafay gis reegal iddaam ñetti set la yu mat sëkk nag koo xam ne nag dafa nekk ku tuuti maanaam gisagul reegal wala mu doon koo xam ne daa gis reegal ba weesu ko ñooñu seen idda dañ koy compter ay weer lay doon maanaam ñetti weer la sunu borom tabaraka wa taala wax maanaam quatre-vingt-dix daal seen idda moom la ku tuuti ki gisagul reegal wala mu yor feebar sax amaana boo xam du gis reegal mutlaqan wala mu doon koo xam dafa dem ba weesu ko jur na ba weesu am jur gisatul reegal fase nañ ko kooku ñetti weer lañ koy konteel su matee iddaam jeex ki ëmb nag iddaam mooy fu mu amee doom moo xam dañ ko fase tey mu am doom ca suba sa am déet bu ko neexee ci gannaaw suba sa mën naa am jeneen jëkkër fu mu amee doom itam kon fayli amatul foofa jëkkër ji jëkk ca mënu koo fayli su ko soxlawaatee day ñëw ñaan siwaat ko comme nam defoon bu njëkk lu bari ci mbokk yi nag ci tomb bi ma weesu léegi te dañ faral di indi ay masala yoo xam ne te moo leen ci dal moo di fase jigéen ji te fekk dafa nekk ci reegalam ndaw si set benn yoon setaat mu dal di ne idda ji eh, wala mu dem ba ci ñetteel ba mu ne idda ji jeexagut daal di koy eh, jëlaat te fekk iddaam jeex na kon ku iddaam jeex mënee su koo jëlaat di àndaat ak moom te fekk ñaani waatoo ko loolu lu mat a bàyyi xel la ndax bari na ay problème yu ci faral di am ki nga xam ne boroom këram dafa faatu bàyyi ko fa iddaam mooy su fekkee ne dafa ëmb fu mu amee doom jeexal na iddaam moom lañuy ñuy tudde téeñ ji téeñ idda la waaye mooy idday ko faatu su fekkee ne nag moom ëmbul day toog ñeenti weer ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan yooyu lañ ci jublu du caagi ni rek ndax wóor ko ndax dafa ëmb la wala déet ndax ñeenti weer ak fukki fan bala koo mat danañ xam ne ëmbul waaye dañoo jublu ne ak jaamu yàlla def caa nekk ci biir loolu ndax sàmmwanteeg jëkkëram ji faatu balaa dem di wutiwaat yeneen jëkkër mu toog diir boo xam ne diir bu yàgg la dépaasu ki nga xam ne nag dafa nekk ci idda su fekkee pasem payli la kooku jëkkër ji la war na muy dundale yeneen jabaram yi ci des noonu la koy dundale nam leen di joxe ñii sol noonu la koy joxe muy sol nam dëkkee ci këram noonu lay dëkkee moom itam ci kër kon moo ko yoreel ab dund moo ko yoreel itam fu muy dëkk su fekkee pasem payli la ndax li ko waral mooy bis bu ko neexee bu ne rek mën naa koy jël jëlaat ko li fekk iddaam jeexul fu iddaam jeexe nag jeex na mu génn kër ga ab jaamur lay daal di doon ci moom loolu moo tax diggante boobu bu ci faatu woon bu ci kenn faatu woon dañuy doon nante ki fase jabaram pase moo xam ne pasem fayli la maanaam pase bu jëkk wala pasem ñaareel mu nekk ci biir idda ji idda ji jeexagut kenn ci ñoom ñaar faatu dañuy doon donnante kon ñoom ñaar atteb jëkk rek jabar lañu yor la ko wóotale daal mooy yorutuk ay bis bu ko joxoonuk ay ànd ak moom ci wàllu sëy loolu day wane ne delloosi siwaat na ko kon loolu ak fayli lay tudd bu boobaa ki nga xam ne nag dañ koo fase pas moo pase moo xam ne mu dagg la mooy moo xam ne nekkatul pasem pay li maanaam fase woon na ko ñaari yoon daal bii mooy ñetteel bi wala sax bii mooy bu njëkk bi wala ñaareel bi waaye dem na ba it ji jeex kooku la ñu tudde baain mooy koo xam ne ab sëy rek la ci mën a jotale wala koo xam ne ab sëy bu ab sëy teguwaat moo la ci mën a jotale kooku moom la ñu tudde baayin kooku moom ab dépasse waratu ko fu ko fasee rek jeex na moo ki nga xam ne dajeegut ak moom ci wàllu sëy du xool amagut mu fase ko ñooyam yoreelu ko dara day daal di dem rek kon nag e, xolu bi ma tuddoon léegi ñu xam ne moom ci xeeti passé yi la bokk waaye passé bu spécial la mooy ñu fay nit ki la mu joxe woon can gam joxoon ndaw sa mu delloo ko ko am na dalil bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna sa daa ñëw ci moom ne ko man day saabit ibnu qays e, xeebuma jikkoom xeebuma diineem waaye nag bëggatuma ko te it bëgguma nekk ci lislaam ba noppi di dund kéefër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne dafa bëgg a tax mu ne ko ndax man nga koo delloo tool ba la joxoon ak can ndaw sa ne ko tool baa ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di atte sëy booba tas kon loolu la ñu tudde xuloo mooy ak jotu la ko sunu borom tabaraka wa tudde tuddee ndax ndaw si saa demee ba sonn sañ naa jotu ñëw jox waa ji la mu ko joxoon ci can ñu taqale seen diggante ñu dem ci imaam wala ñu dem ci qaadi wala koo xam ne kuy àtte la mu tas seen diggante boroom bi tabaraka wa taala am na beneen àtte bu mu tudd fii mooy koo xam ne dafa toog ba mu yàgg mu waat ne duutu sëy ak jabaram ba faww walla mu ne mu joxe ab délai boo xam ne ëpp na ñeenti weer ne duutu sëy ak moom feeg juróomi weer wala feeg ñeenti weer ak fukki fan wala ba faww kooku dañ koy xaar rek su fekkee ndaw si porté na plainte toog na ba mu yàgg lii waa ji nekk neexatu ko mu yëkkati problème bi dosi bi jox ko yoon waa ji dañ koy wax yow ndax mën ngaa delluwaat ci ndaw si su ne waaw ñu ne ko dellul ci ndaw si te si waat googu nga waatoon nga kafaara def li ñu tudde kafaaratul yamin su lànkee nag ne moom du ca dellu ba mu mat ñeenti weer seen diggante tas na moo xam fase na moo xam fasewut waaye tas na ginnaaw dafa waatoon te la mu waatoon def na ko fase ma tas na kon mbokki jullit yi loolu lenn la ci atte yoo xam ne atte passé la te mooy yi ci gëna a euh, bari yi ci nit ñi juum ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne lislaam ni mu xëre ci nit ñi ànd ak góor góorlu ak defar sëy yi ak rëng-rëng yi ak jafe-jafe yi noonu la ubbee it bunt bi nga xam ne mooy buntu passé dañoo seetlu nag gis ne société islamique yi nga xam ne moo am passé dafa bari lool daganal gi ko lislaam daganal taxul mu doon loo xam ne da cee soññee te xam ngeen ne passé li ciy tegu ci ay mbir yoo xam ne yu jaxasoo la kenn xamul nu mu toll ay loro ngi ci ci njaboot gi ay loro ngi ci sax ci ci société bi ci jëmmi boppam ndax ñaari doom yi nga xam ne dañoo nekk ci diggante boo xam ne diggante ay nit ñu tàggoo lañ euh, dund gu méttee métti lañuy dund kër goo leen yóbbu gu nekk gu metti ci ñoom lay doon day mujj mën naa génn sax dem ci mbedd mi ndax tumuranke ndax gisul ndey ak baay yu àndandoo di dund dund koo xam ne guñ mën a supporter la métit yi ñuy dund ci biir kër yi moom ñëpp xam nañ ko su ko defee lépp loo xam ne luy créer loolu la lu mat a daw la te dara ëpput solo li ñu tudde musaalaxa ndax problème mënta ñàkk ci kër su mënoon a ñàkk kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du am problème amoon na problème ba mu gàddaay ay soxnaam weer wu mat sëkk alayhi salaatu te mbirum àdduna rek ko waraloon ànd ak ne ñooñe ñoom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom la yar ñooy ay soxnaam waaye nam ko waxe woon moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne jigéen ci boppam ci ak faar lañ ko bind te ak faar dafa dënk yonente bi alayhi salaatu noonu la ko waxe kuy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci aw melokaanam muñal ko kuy tàggook moom da ngay tàggook moom rek mu yor melokaan mu mu yor waaye mun leen a fexe ba cent pour cent ngeen bokk di dund dund goo xam ne day continuer te jooyoo du am kon jooyoo gi du gàcce ci ñaari way dencante waaye nag jooyoo te mënee su koo lijjanti moom gàcce la ci ñoom ndax sëy bi échec mooy bi dem ba tas juddoo ca kon loolu lu mat a wattandiku la lu mat a bàyyi xel la waaye nag ñoo xam ne it njuumte yi am ci passé bari na ñu bàyyi ko xel allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad warda allahuma an xulafaa'ihi al-arbaa abi bakrin wa umara wa usmaana wa ali wa an saa'iri al-aali wal ashaabi wat-taabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin wa cannaa macahum bi cafwika wa karamika wa ixsaanika yaa akrama al-akramiin allahuma aciznaa al-islaama wal muslimiin واحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة المفسدين وألف بين قلوب المسلمين wa waxid sufuufahum wa aslix qaadatahum wajmac kalimatahum ala alxaq ya rabbal aalamiin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad